Serigne Cheikh daa mel ne loo yor de. Ah. Pastef mooy rendre hommage à Serigne Modou salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa maa ngi nuyu ñi fi ñëpp maa ngi nuyu ñi fi di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sama borom mu yàgg fi loolu te di ko ñaanal kilifa diine yi ci réew mi yëpp su ma sañoon nag bala maa tàmbalee wax per musaa fay ak Biram Diouf fekk si ma fii ci kaw tribune bi ndax li bëgg wax mën nañ ci seer lool père Moussa Faye doyen Moussa Faye su ma sañoon mu ñëw fii ci kaw tribune bi ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba ak Biram Diouf père Moussa Faye bëgg naa nga jéggi ñëw fii ci kaw tribune bi ndax li may wax am na ci solo lool yow ak Biram juuf Moussa Faye na ñëw fii ci kaw tribune bi président Ousmane Sonko yal na yàlla sàmm la président Ousmane Sonko yal na yàlla guddal soo fan président Ousmane Sonko yaakaar ji nga am ci Sénégal yàlla bu mu tas père Moussa Faye na ñëw yëg fii kaw tribune bi leen père Moussa mu yëg ci kaw tribune bi may président kii moo jiite magi Pastef au niveau département Mbacké soxna Nabou Faye ñu koy wooye le lion de Pastef mu ànd ak majaw ci coordination départementale bi soog bi amoon Modou Tall mi ñàkk ci bakkanam Nabou Faye mi bokkoon ci soog bi ba jamono ji mi ngi hôpital kii mooy papaam te keroog bi soog bi amee moom bokk mu ñu doon defal même père Moussa mi mii te doom ku ci nekk xam na ne dafa sax ci xol kon père Moussa ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ci taxawaay bu rafet bi nga xamante ne am nga ko ci di ñu gunge. boo gisee ma woo ñoom ñaar ñii ci kaw tribune bi damay bëgg a wax dafa am solo département Mbacké dafa am solo ci combat Pastef département Mbacké dafa am solo ci gunge président Ousmane Sonko. kon buñ tollee ci moment yu toll nii président Ousmane Sonko ñëw ci département Mbacké di def meeting il faut que ñu xamal département bi lan la Pastef dund fii ci département bi Cheikh Tidiane Dieye junj na ko léegi xawma honorable député Aliou Sall monsieur le ministre Aliou Sall Pastef ay dëbëm fii ci département Mbacké yombul woon kon bi dugg fii ci département bi ki jàppoon loxoom dugal ko ci département bi muy biram Diouf honorable député Aliou Sall wax ko léegi Ousmane ko def ko premier suppléant jar nañu rendre ko hommage ñaanal ko yàlla suñu borom sàmm ko kon biram yow ak père Moussa Faye mën ngeen a dem toog ma eggale samay kàddu jërë ngeen jëf dama leen di xamal ne ni département Mbacké warlu woon ak président Ousmane ko def nañ lépp ànd nañ ak moom ci ay moment yu difficile ànd nañ ak moom ci ay moment yu metti gunge ko lenn ci ñun ñàkk ci seen bakkan ñu ngi leen di ñaan yàlla suñu borom xare leen ci àjjana yu gën a kawe. pour cent ci xale yi àndoon ak ñun dem ci kaso am ci ñoo xamante ni am nañ ay blessures mënatuñoo taral des seen àdduna kon loolu buñ ko dundee ci ab projet objectif numéro un bi ñu amoon mooy yóbbu président Ousmane Sonko palais loolu lañ amoon kon bu yàlla dogalee président Ousmane Sonko ci mbaaxam ci ak laabiram ci ak bëggam Sénégal dem pale jot mu sacrifié boppam jël rakam président Bassirou Diomaye Faye jox réew mi kon ñun département Mbacké war nañu rendre hommage président Ousmane Sonko te xam ne boppam tax koo jóg man Cheikh Thioro li ma yàgg wax moom lay wax man so tàmbalee ci Sonko yem ci Sonko bu Sonko bàyyi woon politique dimanche bu Sonko bàyyi woon politique dimanche à midi à midi une minute bàyyi politique. man jeeg laa boo xamante ni benn yoon laay sëy sëy naa ak président Ousmane Sonko du ma tas. ci politique ci politique benn leader mënu maa yilif ku dul président Ousmane Sonko ci politique. am naa ab Serigne Serigne Touba laa yaakaar moom rek moom fees sama bët ku dul Serigne Touba feesoo sama bët loolu na leer nañ mais ci politique njub gi nekk ci Ousmane Sonko. gi nekk ci moom yëg ay militant gi nekk ci moom nekkul ci benn leader politique ci Sénégal depuis 1960 ba léegi kon leader bu mel noonu bu ñu ko amee ñu dugal ko ci département bi mu jël première force politique au niveau département te booba yombul woon ndax législative 2017 Serigne Cheikh Basirou Mbacké mais moo nekkoon suñu tête de liste mi ngi fii ci jotaay bi bëgg ngeen tàcc ko ñaanal ko yàlla suñu borom sàmm ndax man mii di wax waajur la ci man di nijaay ci man teewul def ñëw gunge ci moment yu difficile. bàyyi ñu ak lépp di ànd ak ñun liggéey bi fu mu mën a toll 2017 moo nekkoon suñu tëdd liste li ñu amoon ci ay voix lépp boo calculé motu 300 voix kon loolu ak tey jii ñu naan am na 190 000 voix ñu koy bëgg ko yóbbu 250 000 voix kon yéen waa département mën ngeen rendre hommage. bu loolu weesoo nag man li ma ko waxee amaana bii mooy nekk sama dernier meeting politique ci kaw ci kaw ndax 2017 damaa dugg ci département bi campagne def ko 2019 def ko 2022 def ko 2024. loolu li muy signifié mooy fépp fu mu mës a dem wax nañ ma ay doléance mu yóbbaale ko kon bu yàlla dogalee département Mbacké ñu ne mooy département bi gën a peuplé mais mooy département bi gën a dellu gannaaw ci Sénégal kon kon loolu li ma ci jubla wax mooy kon loolu li ma ci jubla mooy dama xam leader bi ma àndal bu baax a baax nag kon li ma waxoon barki démb Kéré Mbaye laay baamuwaat fii ab ministre de la république lu ma la fonk fonk fonk boo ñëwee assemblée nationale sa budget dinaa ko càmbar mais li tax ma wote ko mooy ndax tenir na compte département Mbacké lu ma bëgg président Ousmane Sonko bëgg président Ousmane Sonko lu ma bëgg Cheikh Tidiane bëgg Cheikh Tidiane Dièye bu ñëwee assemblée nationale bu newul dina régler problème mu ndox Touba bi wala assainissement Touba man dama wote budget ndax nag ndax nag sama mag ñi daan def politique fii ci département bi ni ko daan defee yomb na lool mooy mbëkk bureau ministre yi wala directeur généraux yi bu ñu leen joxee deux millions wala trois millions ñu dam mu deux millions ci seen poche jënd machine wal jënd ay bët a pompe ñoo jox leen loolu sama jikko man li ba ànd ak mooy mooy budget Sénégal bu dee mën na sept mille milliards wala mille neuf mille milliards département Mbacké daf cee am wàll wàll woowu ci département Mbacké am yelwaanu ko saraxu ko dañ ko ko war a jox far force te à partir de maintenant politique dina fa politique dina changé ci Sénégal mais dina changé ci département Mbacké far la force ñi fi nekkoon def politique dina dem retraite far la force ndax yéen ñii fi nekk nii yéen ñii fi nekk nii yéen ñii fi nekk nii yéen a leen imposé pour ñu dem retraite politique nañ gëm yàlla xam ne Dakar du saf safaat yéen ñi ma xam nii. Touba loolu faa yoo waral kenn képp koo di àndal da ngeen a gis ci moom dëggu ak jub bu mat sëkk moo tax li ñu ànd ak moom mais président Ousmane Sonko li ngeen koy bëgg bëgg bëgg bu saxasee doxalin yéen ñi xam naa leen di nga yor ay xeer jàmmaarloo ak moom kon dëgg googu yéen moo nekk ci yéen alhamdulilah nag ba président Ousmane Sonko du koy soppeeku du koy changé ndax lu ne xaw na fi li xamoon ci leader politique yi mooy bu ñu demee ba seen mbir di waaj a jeex. ñu sacrifié ñu àndaloon moom bi mu demee ba waxtu bi gën a la dem ñu teg ak moom lu ne ndax li ma leen wax xam naa ko baax a baax baax a baax bu neexoon président Ousmane Sonko élection du am 2024 ci réew mi bu neexoon président Ousmane Sonko élection du am 2024 ci réew mi kon dina dugg ci ay diil ak ay complot bu dugg réew mi ci kaw lépp la xewoon Cap Manuel ñu koy woowee Cap Manuel bu bu ci dara génnoon président Ousmane Sonko du sëkk président Ousmane Sonko du diil ci kaw ndodd du Sénégal yi barke alxuraanu karim président Ousmane Sonko këram tas na ngir Sénégal président Ousmane Sonko sacrifié na boppam ngir Sénégal président Ousmane Sonko sacrifié na njabootam ngir Sénégal projet Pastef projet Pastef bu doon am na kenn ku ci am mérite mooy ñi tëdd Bakhia ak ñi tëdd ci armée li Touba bu dee am na ñaareel bu ci am mérite président Ousmane Sonko keneen amaatu ci mérite ndax moo xeex moo dem kaso moo sacrifié boppam kon bëgg naa ñun waa Pastef ñu xam ne benn star moo fi am mu président Ousmane séddale carte yi ndax am na ay 4000 carte d'identité yu nekk si préfecture Ndam di nelaw te ñun ñoo ko fa bàyyi kon bëgg naa bu ñu eggee le 17 ni ñu ko doon waxee ci élection législative yi jàll mooy xëdd dem wote ji ndogu civilé reer dem palais kon lii li ñu war a wax mooy lan ndekki dem wote ji añ civilé bu ñu xaar génn ndax bu vote yi démarré mën nañoo commencé civilé. am na cinq députés yi ñu investir ci liste bi muy man Cheikh Thioro mii ak seen coordonnateur départemental muy Ahmadou ñu koy rendre hommage ale ama Ahmadou Lo ku mérite rendre hommage la li dese li dese kasu seen wax léegi président Ousmane Sonko dafa rendre hommage Pastef ku gis liste yi ni mu ko tegee li nga xam ne fàttewul nit démbam kon ñiy wax parti transhumance ak diw ñëw na ak diw ñëw na li doon neex mooy bi ñu waree togg ci liste yi président Ousmane Sonko def ay calcul politique diw moo soor Matam nañ ko jëli pour gagner Matam mais defut loolu dafa jël Pastef biir indil Matam def ko ci liste bi kon képp ku ñëw na leer yaa indi sa bopp président Ousmane Sonko indi wu encore une fois encore une fois encore une fois. encore une fois Pastef kese Pastef Sénégal Sénégal xajul ci Pastef Sénégal ci Pastef Pastef moo xaj ci Sénégal Pastef parti la pour sénégalais yëpp loolu na leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy gën gi mbindeef yonent bi mooy gën gi mbindeef bi mu waree dugg Makkatal Mukarrama noonu kar ko ne ko fii doo fi dugg keroog lan la wax mooy képp ci yéen ku dugg kër Abu Sufyaan raw nga baatam kon exemple boobu bi set président jox leen ko kon nañ koy tirer comme leçon kon mbokk yi maa ngi daanale foofu samay kaddu te xam ne mënoon naa yëkkati kaddu rek wax ne ñëpp kenn la ñuy déglu muy président Ousmane Sonko nañ ko bayi mu wax samay wax amul njëriñ waxe Ousmane Sonko mo am njëriñ bu ma kenn déglu nañ déglu Ousmane Sonko asalaamaaleykum wa rahmatulah. del déglu del xool.